partout euh, da nga doon gis ni dañu dindi tali yi doon fa dugal ay canalisation ñu bëri doon njortu ni euh, peut-être bu ñu paree canalisation ñu doon dugal euh, du ñu dundaat nawet boo xamante ay jafe-jafe la tey jii boo demee maintenant les routes sont impraticables amatul sax tali fii ci Derklé aussi même chose moom moo fi nekk ak feneen ak feneen ak feneen yàq nañ tali dugal nañ fa ay canal euh, canalisation mais canalisation yooyu est-ce que euh, mujj na am njëriñ boo gisee inondation bi ñu gis tey. waaw xam nga maam Biram mu ngi koy wax bi bi cow li jibee je crois c'était il y a deux ans de cela ba assemblée nationale ñu wax affaire cent milliards yooyu euh, assemblée nationale député yi ne dañuy former une commission d'information. maanaam dem fépp foo xam ne biir Sénégal. day am inondation boobu temps jamono yooyu sénégalais yi commission d'enquête nañ doon demandé. waaw léegi ñu ne. ñoom ñu ne il préfère être journaliste plutôt que député ñu nommé seen commission bi ñu dem di wër biir Sénégal fépp foo xam ne dégg nañ fi inondation ñu jéem a gestu ba xam ñaata lañ fa duggal exactement mais mënuñ finalement euh, cette commission n'a servi à rien. Hmm. ils ont déposé le le le bu ñu defee le tour du Sénégal qui ressemble même à du tourisme finalement <laughs> on n'a pas euh, ay résultats. effectivement yow boo boo euh, à chaque fois bu ñu nee nawet nawet a ngi commencé bëgg a ñëw à partir du mois de mai. nga gis gars yi ñuy nu ñuy gasee tali yi. nu ñuy gas nu ñuy gasee un peu partout euh, à Dakar da ngay naan non non lii bu ñëwee moom taw bu ñëwee vraiment bi yoon moom sera la solution malheureusement ce n'est toujours pas le cas chaque fois di nga gis gars yi gas a gas a gas un peu partout comme ay kaña rek. Mhm. mais dara aucune solution. xam nga problème bu Dakar nag parfois. je crois il faut un courage politique. pour mun a régler cette situation là. am na benn grand bu naan euh, euh, gis ngeen Paris France amoon na genre problème bu mel noonu mais le baron Haussmann avait fait détruire plus de vingt mille édifices. y compris même des églises pour faire de Paris ce que c'est aujourd'hui euh, bu ñu jëlee zone de captage bi chaque fois dem koy wax. zone de captage boo ko déggee du pour capter ay ay bal. Mhm. ndox lay capter. gars jaay ko. gis nga tey tey boo fa demee lan nga fee gis. Mhm. te loolu kan moo ko defoon. ci wetu bassin bi sax la inondation bi di commencé. Senghor même les colons mosuñu ko ñeme xalaat. Mhm. Senghor mosu ko xalaat. sunu pa Ablaye bii moo ko xalaat jaay ko. Mhm. dagati ko. les conséquences aussi on a vu ce qui ce qui s'est advenu. boo demee tamit da ay Kër Massar affaire yooyu. ay zone yu bëri yoo xam ne dañ gaay gaay ñoo ko jaay. Mhm. keroog Macky Sall bi ngay wax nii. bu mu demee bi bi affaire u Kër Massar bi tàngee dëgg-dëgg. Mhm. dafa dem ne finalement yaakaar naa ñun ñu ñun ñi nga xam ne ñoo jiite affaire bi nous sommes les premiers responsables de ces inondations parce que ñun ñoo yore mairie te ñun ñooy jaay nit ñi suuf si nga xam ne fa la ñuy dëkk. ba problème inondation am. Mhm. donc il faut commencer d'abord par. def def autocritique mu ngi koy doon bëgg a jiiñ maire yi de. <laughs> waaw waaw ah moom kay moom kay maire la ko jiiñ <laughs> parce que dafa ne keroog keroog dafa ne woon yéen maire yi yéen ak yéen vous êtes les premiers responsables ces inondations là parce que yéenay jaay nit ñi ko foo xam ne xam ngeen ne kenn waru faa dëkk. Mm-hmm. buñ fa dëkkee nag finalement ndox mi ñëw euh, deux ans après ndox mi ñëw nangu cité bi. ngeen ne voilà gouvernement bi liggéeyul liggéeyul. mais la vérité nag mooy la la vérité la vérité mooy que <laughs> effectivement bu demee ba nommé ay ministre des inondations encore une fois ces kenn il nous dit apprenez à vivre avec les inondations. mais sa responsabilité à c'est sa responsabilité parce que bu ñuy wax ay sept sept sept cent milliards quand même c'est pas sept cent mille francs. oui donc loolu moom si boppam war na si jóg. mais ce ministre des bon euh, bu ñuy wax sept cent milliards yi boobu ministre des inondations mais yow mënoo comprendre ay ONAS nekk fii ay euh, yeneen ay yeneen yeneen structure yoo xam ne looloo tax ñu jóg. mais on a <laughs> waaw on a l'impression que ces structures là n'existent même pas mais ñooñu bu ñu structure yooyu bu ñu daan liggéey liggéey bu jaar yoon kon du ñu soxla ministre des inondations je crois bien. Mm-hmm. parce que li ministre yi finalement tu demandes sax lan mooy njëriñu ministre des inondations dès dès l'instant qu'on a ak lenee ak leneen. Mm-hmm. donc lan mooy njëriñu structure yooyu. c'est ça c'est ça la question qu'il faut se poser. Moustapha euh, ba tey ci loolu la ñuy des. Mm-hmm. cent milliards yi euh, mujj nañ ko acquiescer ah mujj nañ ko banaliser def ko benn fait divers mu jàll noonu est-ce que quand même yombul ñu jël alalu askan bi nii dañ ko def ci askan bi te askan bi gisuñu si ay résultats Kër Massar boobu waxaguma taw bi mais avant taw bi nii Kër ma Massar am na ay zones yu bëri yoo xamante ni dañ leen coupé woon bi restant euh, parce que ay ndox kese la woon amatul woon euh, fu nit mën a jaar gis nga li li li am Birame wax sax dama gis waa ju bind à peu près la même chose tey ci suba mhm. moo di ne dafa wax ne les Sénégalais ñoo war a génn réclamer seen xaalis c'est ça mm. qu'est-ce qu'on a fait des sept cent et quelques milliards yi nga xam ne ñu ko investir sur dix ans. pour régler problème inondation yi. soo gisee tey li xew rond point boobu xam naa sorewulo bi ngay ñëw. mais Elton foofu mais extraordinaire. Mhm. les les gens gis nga Pape exigence boobu. Mhm. nga xam ne moom la citoyen bi war a am. Mhm. à l'égard de ñëpp ñi nga xam ne dañu am benn parcelle de pouvoir lu mu tuuti tuuti. gis nga cette exigence là tant que sénégalais yi man je dis souvent que nii Sénégal kuñ fi fal ci wàllu politique nga responsabilité. Mhm. aw ma benn yërmande ci yow. Mhm. parce que ñun ñi ñu fal ñu jiite ñu ay buur lañu. ils ont absolument tout fay ñu ndox fay ñu courant jënduñu carburant jënduñu ceeb jënduñu dugub jënduñu dara seen lépp état wu Sénégal moo ko yor. Mhm. boole ceeg soo seqoon ak ñoom yoon. ab flèche moo leen ni tijjil ñu bàyyi la fa dem. Mhm. soo feebaree dem hôpital ñoom ñu feebar dem euh, Maroc wala feneen ak feneen wala Paris wala feneen ak feneen. ñenn ñi di fayeeku cent mille francs par jour. exactement ñenn ñi di di di dem bay fay ab ab ab député un million trois cent député boo xam ne dara nekkul liggéeyam loolu saaga nit ñi mais nit koo koo jox autant de nu ñu koy wax sax autant de faveur. autant de bànneex mais da nga war a exigeant ak moom mhm. su fekkee ne dafa war a def fii benn post de santé mu def ko fi ñu war koo peinture jaune mu perte mu peinture ko verte dama lay porter plainte su fekkee ne dañu wax ne def nañ cent milliards ci inondation sur 10 ans sénégalais yépp ñi ciy dund nañu laaj ñi dëkk Kër Massar ak feneen constaté que ni génn ci ndox ba léegi. dañu war a créer comme ni ko réew tubaab yi defee créer collectif dem porter plainte état wu Sénégal. même bu fekkee ne yoon du ci def dara sax nga def li nga xam ne moom nga war a def. beneen bi mooy su fekkee ne euh, euh, le citoyen moyen bi ñu ko may pour sanctionner jot na mais nga sanctionner ba ñu xam ne sanctionner nga bu baax baax baax a baax man du ma dëkk ci benn dëkk. gis maire bi jaay foo xam ne dafa war di inondé mhm. te li te li li doy waar ci jaay fuy inondé mooy su taw amee inonda euh, ndox ñëw fa du yam foofu mhm. zone de captage bi Georges di tudd bu fekkoon ne bañ ko jëlee jaay ko bu ndox mi ñëwee zone de captage rek lay inondé mais ñu ne ña dëkk ñoom ñoo am problème ah mais ndox ma fa doon dem mhm. mënatu faa dem parce que dañ fa construire mais day inondé quartier yu ko wër yépp ça s'est passé par exemple ci Ouest Foire gi am na ay moment mais danaa daan inondé comme pas possible pourquoi ndox yi nga xam ne moom moo doon dem ci si Cissesse le le nu ñu koy wax sax euh, euh, suuf si nga xam ne moom la fa sengoor bàyyi woon moom lañ dagg def ko ay cité des magistrats xaw ma mm-hmm. ndox moomu amatul fu mu nekk bu ñëwee day jéggi VDN bi dem déverser wu à Ouest Foire. Mhm. mais mais yooyu dafa citoyen dafa war a exigeant ci loolu. beneen bi mooy li Georges wax sànq et man ça me semble extrêmement important quand il donne l'exemple de Paris. gis nga dakaar gi il faut un président bu am benn courage politique bu extraordinaire. Mhm. un président qui se dit la prochaine élection ne m'intéresse pas nañ ma gagner mais Dakar moom dinaa ko defar. Mhm. est-ce que nga Pape Dakar bari na fi ñoo xam ne fu ñu dëkk dañ ko war a toj jox leen feneen. fàkkal Dakar ay mbedd. mais c'est mais voilà une capitale boo xam ne Pape Mokhtar da ngay jël ci distance boo xam ne sa fait pas 5 kilomètres nga bën bu nga bëgg fa fanaan. en temps normal. en temps normal man daf may dal euh, souvent le euh, ban jour laay def live sax le mardi. Mm. quand je dois faire live à Walfadjri nga xam ne c' est à 15 heures. Mm-hmm. je me dis bon su ma añee 14 heures 14 euh, heures 30 ma génn diggante VDN ak Walfadjri tu fais 10 minutes war nga agsi. mais parfois il t'arrive nga def 30 minutes. pourquoi simplement parce que Dakar amul ay yoon. Mm-hmm. boo duggee ci embouteillage amu amoo fooy tegg yaa que les cars ñoom ñooy tegg te buñ mm-hmm. teggee bu am courage yu repenser ko quartier yi nga xam ne dañ ko war a toj ñu toj ko ñi ñu war a déplacer ñu déplacer leen ñu ñu dem fene parce que nag nit ñi mënuñu dëkk Dakar par force loolu amul fenn. Mhm. Mhm. amul fenn zone yu bari mi ngi inondé actuellement à Dakar leen rek moo leen ko teg mooy ay nit ñoo tabax fu ñu warul tabax. Mhm. fii ci Dakar ngay gis la capitale du Sénégal Pape Mokhtar. nga xam ne dafa am un am am préfet. am ay mairie ak ay mairie d'arrondissement ni ñu ko daan waxee du temps du PS du PS. cette Dak euh, cette ville là Pape Makhtar waxuma inondation mais une question mooy Dakar gi ngay gis nit day tabax këram bunt bi bu wala boog euh, nu ñu wax sax buntu kër gi wala mbedd mi mu décider moom borom kër gi ni fii kenn du fi gaare oto mais c'est à Dakar que ça se mbedd moo gis moo romb gis nit ñi jël ay bouteilles sol ci ndox wala suuf teg ko ci seen buntu kër de kenn du fi gaare fan lañ ko teg amul benn loi bu leen ko may te ku ko wax dee ku leen ko wax dee man benn jour j'en ai parlé avec le maire de Derklé là Cheikh Gueye euh, mu boole maag benn waaye kii sa satisfait qui se satisfait de ces questions là mu ne ma mais il faut que les gens comprennent que ni moomuñu mbedd mi en réalité. Ah, mais une capitale comme ça ku nekk lu la neex def. Mm-hmm. sa boutique da ngay am boutique ba pare lal ci mbedd mi. wékk ay mbir ci mbedd mi teg ay chaise ci mbedd mi kenn du kenn du fa circuler mhm. nit ñi di xat-xatloo mais loolu bu ci inondation ñëwee di yokk fu nit ñi jëm li ci li ci gën a euh, doy waar sax sa bitig nga occupé ci biti 6 mètres carrés mais bien sûr li ngay occupé ci biti moo ëpp sax sa sa sa bien sûr te loolu li koy régler c'est c'est un comme ni ko Georges waxee xa yaa ngi fàttaliku bi Pape Diop waxee ne day yëkkati ambulants yi à Dakar ñu manifester manifester bu métti ñoom ambulants yi di xeex alkaati yi suba ba ngoon mhm. Ablaye Wade jël décision ne leen fi bàyyi ay leen fa mhm. mais tant que ça continuera comme sa mais dakaar du dem mhm. mënta dem mhm. beneen bi Cheikh Gueye moom xam naa war na si jóg euh, mooy euh, marché hebdomadaire bi euh, seen marchandise yi. léegi au lieu ñu koy déplacé teg ci yoon bi loolu moom Pape yàlla na yàlla fay ci koy déplacé fii dañ koy sànni ci trottoir yi nit ñi duñu am fu ñu jaar. moom nga am gan invité bu ñëw Walfadjri mais day gaare fu sori dox ba sonn pour ñëw ak si fii mais fan teguñ ko fenn pour boo ko waxee ñu ne dañuy daal seen doole ay bal fëgg jaay nga teg ko fi nit ñi war a gaare pour une semaine mhm. dafa taw taw bi tooyal ko nga bàyyi waat ko ba marché bi ñëwaat mais faut arrêter ça. Mhm, mhm. Cheikh Gueye en tout cas il est il est il est interpellé. mam euh, mam Biram euh, tey maire yi boo leen di wax euh, prétexte yu ñuy wax mooy que way nit ñi guddi nañuy tabax ak yu ni mel ñu ngi si ay prétexte mais est-ce que du ñoom ñooy les les les vrais responsables bu ñu nuyee état du Sénégal état dafa organisé wu dañuy nekk ci état de droit ak yu ni mel est mën nañu wax loolu ba noppi di wëlbatiku di ñu naan am na ay sénégalais yoo xamante ni ñu ngi sañ def lu leen neex te dara du leen ci fekk. waaw c'est Sénégalais ku def lu la neexee c'est parce que anarchie moo fa am dëkk ba c'est pas tenu c'est pas organisé xam nga xam nga euh, euh, euh, c'est vrai que courage dina ci am solo trop trop trop mais am vision tamit lu ci baax lay ah, doon am vision puisque quelque part Paris li tax mu possible c'est parce que y'a Marseille y'a hmm. Lille y'a hmm. Lyon ay dëkk yoo xamante ni dañoo développé de grandes soxla wu ñu dem di dajaloo ji à Paris hmm. mais Dakar li baax Sénégal yëpp nga ñëw dajale ko Dakar. oui. Mhm. léegi nit ñi nu ñuy def dañuy toog. dañ koy fekk si di di compter potolamp yi. Mhm. <laughs> képp def loolu il ñu dem fa koom nga nekk. il faut nit ñi dem fa nga nekk. c'est sûr boo jëlee. <laughs> dañuy toog njaareem di compter potolamp ne <laughs> képp képp képp képp képp <laughs> buñ dewul rek <laughs> yow Dakar. yow nga jël Dakar. ñu ne la c'est cinq cent cinquante kilomètres carrés. Mm-hmm. cinq cent cinquante kilomètres carrés. Mm-hmm. nga jël suñu économie bi yëpp def ko fa. lépp léegi lan nga bëgg. ñeneen ñi toog fële ci ci ci yeneen régions yi di di di compter yi comme ni ma ko waxee sànq. loolu mënul ne maa biram dogguma la ñu ne Dakar dafa xat. nga dem ci entrée ba tabax fa ville bu bees. waaw ma xoj xoj Dakar xoj Dakar. yow tey jii nii bu nekkee ne bu nekkee ne euh, euh, quelque part nit ñi dañu am ay critiques yu ñuy émettre ci terre bi mais c'est parce que waxuñu ne teer waru fee am mais dañu ne terre bu dee am Sénégal wala saxaar di daw Sénégal mm-hmm. fi mu war a gën a daw mooy diggante dakaar ak beneen région ci Sénégal. absolument. tey yaa ngi imaginer euh, euh, Pape Matar. bu doon am nañ ab train boo xamante ni mu ngi jóge Saint-Louis. Mhm. Euh, di ñëw Dakar wala mu jóge Tamba di ñëw Dakar di def escale ci yenn régions yi. Mhm. Mhm. liñ ci mën a transporter en terme de marchandise. boo déggee ñi ñi naan la fële ca Potou soble bi dafa nëb ba tey jii nii dañuy gas ay pax di ko suul nga dem ci beneen dëkk boo xamante ni mu ngi à quelques kilomètres gisuñu sax pepp soble c'est parce que un problème de transport se pose donc bu nekkee terre boobu tey da nga jëloon nga ne yaa ngi ciy def 1000 milliards mais li gën kat mooy dakaar bi nga xamante ni 550 kilomètres carrés la di représenté wul sax 1 pour cent du territoire. mais nga ne damay fexe ba créer yeneen zone yoo xamante ne nii nit ñi dina euh, bu ñu fa toogee. Hmm. parce que euh, dëkk boo munti gis bu fa nit ñi toogee c'est parce que dafa am lu leen fa téye. nga ne di nga fa teg loo xamante ne nii tey di euh, dina tax jeunesse yi jeunesse bi. du ñu bëgg a ñëw dajaloo si à Dakar bu ñu nekkee ci beneen région <coughs> muy Thiès muy Diourbel muy Kaolack muy feneen ak feneen dina leen mën a permettre ñu am ñu toog foofu am ci lu ñu jàpp mm-hmm. Mm-hmm. mais tel n'est pas le cas mm-hmm. ba ci BRT bii bërki démb ñu ne la à Dakar lañ koy indiwaat yow superficie bu toll noonu ñu ne la quatre million wala cinq millions de personnes ñu ngi fay yeewoo par jour calculer la densité c'est combien te xam nga contrairement euh, ak lii xew ay Paris ay yeneen dëkku tubaab yi mais dañu euh, construire des immeubles yoo xamante nii bu ci nekk rek war ngaa mën a jël ab sous-quartier de des résidence yoo xamante ne nii non seulement c'est euh, euh, comment dire c'est social mais dañ koy construire foo xamante ne nii du nekk ci digg dëkk ba de sorte que non seulement du créer benn euh, euh, euh, parce que boo jëlee benn benn immeuble boo xamante ni c'est dix étages nga jël ko nga def ko dix kër imaginer surface bi muy jël. Mm-hmm. mais bu boobaa fa tiwo waroon a jaar ab kër nga ab kër lañ fay teg. fa nga waroon a évacuer ndox ma xam nga dernièrement maa ngi ko fi wax bu doon da Sénégal dafa nekk comme par exemple Mali nga xamante ne nii dëkk bi amul littoral amul fenn foo xamante ne nii. Euh, euh, euh, mun nañu am na contact ak géej gi. oui nga ne sax peut-être problème évacuation ndox. da pose problème. mais daaw inondation yi bu mu fi takkarnaasee. Mhm. gisuñu fii benn oto boo xamante nii ci corniche bi la doon feey ba ñu ne ka fa nekkoon am na problème. oui dafa mujj décédé sax ñàkk na bakkanam te pourtant corniche boobu ak géej gi ce n'est même pas cent mètres. léegi yow naka nga mën a nekkee ab ingénieur di xalaat construire ab tëli boo xamante ne nii. mu ngi à quelques mètres océan ba. Mhm. defuloo fa benn système boo xamante ne nii bu fa ndox wàccee dina mën a évacuer mu dem ci géej. nga nekk ab ingénieur nga euh, architecte wala loo munti doon nga xalaat ba pare ne fii ab tëli lay doon mais tëli boobu kat xalaatuma fenn foo xamante ne nii bu fa ndox ñëwee mën na fa jaar ba jàll mhm. maa ngi koy wax léegi maam Birame euh, bi ci gën a doy waar rek mooy fii euh, zone de captage ci wetu bassin de rétention bi terrain boobu noonu kenn mënu ko traverser bu tawee dafay inondé comme pas possible alors que c'est à quoi moins de cinquante mètres du bassin de rétention ma ngoog <laughs> problème de problème de vision teewati foofu xam nga euh, euh, dans tous les ñun Sénégal mënuñu nekk dëkk boo xamante ne nii nawet bi bu ñëwee def trois mois wàccee fi ndox moo xamante ne nii dañuy poser problème alors que ci yeneeni zone ñu ngi soxla ndox en période euh, saison sèche la xawma nuñ koy tuddee bu bu nawet bi ñëwee. trois mois kese. Mhm. wàccee fi ndox moo xamante ne nii day jaaxal nit ñi ah. alors que bu nawet boobu paasee nit ñi dootuñu gisati ndox mu ñu bayee. mais loolu lan moo koy régler leneen lu dul vision. vision. vision tout simplement donc nga nekk njiit koo xam njiit boo xamante ni yow boo ne eh, quelque part Dakar kat gis naa ne dafa saturé Dakar dafa sature léegi ñun lan la ñuy def mooy dañuy créer yeneen trois zones yoo xamante ne nii xëy na bu ñu mënul développer comme Dakar kat dinañu fa teg ay industries yoo xamante ni dinañu mën a retenir les populations ñu toog fa. soo ko defoon. quelque temps nga favoriser nit ñi ñu dem tabax yi ji foofu. Mhm. mais bientôt Dakar dootoo fi déggati waxu inondation mm. mais tant que nit ñaa ngi gën a dajaloo di gën a tabax. Mhm. ah te dëkk bi du gën yaatu. Mhm. mais il va sans dire que ne euh, inondation yi day gën a tar. d' autant amuñu ñoo xamante ne nii am nañ xam-xam bu leen mën a permettre ñu créer ay système